tey jii di talaata yemook uh, fukki fan ak benn weeru avril atum 2023 bisimila ci xabaar yi la ca gën a fës dañu koy dooree ab gendarme ba nga xam ne moo ñàkkoon bakkanam foofu ca VDN ka defoon li ni mel nag yoon mujjee na ko teg loxo askan wi yeewoo ci VDN 3 ñi nga xamante ne ñooy waa amoo kat amoo tefes ak waa golf ci njaxare la ñu nekk ndax jamono ji ay accident yu métti ñooy am foofu ba tax am ñenn ñoo xamante sax dañ ciy daal di ñàkk seen bakkan ñoom nag ña ngay artu nguur ñu daal di saafara li mel Sicap Liberté 3 ab daal bu jugee ca kaw foofu nga xamante ne dañ fa doon liggéeyee moo daanu ci benn kër ci salon ba sax la daal di dal ba toit ba daal di dindee ko am na sax ñaari xale yoo xamante ne ñu nga tëddoon ci boobule salon waaye dara mujju leen a dal yéen kaay bi di la regard lañ koy daal di ndax keppee xibaar yi daal di buur nees gis ñu jukk ak yéen ci faram fàcce gi am na ñaari nit yi ñu mujjee teg loxo ci ab l'accident bu métti woon bu am foofu noonu ca VDN di benn gendarme boo xam ne daal benn auto particulier moo ko fa fekk daal di ko mbëkk ginnaaw ba benn caterpillar taxawee woon ci yoon bi guddi samedi jàpp dimanche nag ci la ñëw ci la sax benn taxi daal di dalee ci kawam noonu la gendarme bi ñëw di def li nga xamante ne moo di constat ca la ko oto ba fekk daal di koy mbëkk mu ñàkk bakkanam ci saa si mu nga xewee woon nag foofu ca VDN ci côté foire bi nga xamante ne nag moo rey euh, bile gendre moom nag yoon mujjee te mujjee na ko teg loxo chauffeuru Caterpillar bi itam euh, ma nga garde à vue askan ba yeewoo ca amoo kat amoo tefes ak foofu di golf njàqare la ñu am ak jaaxle ndax daal six mois ba léegi seen passerelle ba mujj nañu fa muñuñu faa jaar ndax yàqu gi nga xamante ne am na fa ñoom nag ñu ngi ñaax nguur gi ngir ñu defaral leen passerelle ci nu mu gën a gaawee ndax askan wi daanaka ci autoroute ba sax la ñuy daal di aw ngir mën a doxi seeni soxla ci noonu sax tax na accident yu bëri ñaari fan yu nekk dina am accident boo xamante ne dina am ñenn ñu fa ñàkk seen bakkan daal di caqat caqatee ndax saay boo xëyee di nga gis koo xamante ne daal ñoo na di tabax te kenn ci ñoom dëkkuñu ca gox ba Sicap Liberté 3 benn chantier bu fa nekk daanaka daal benn grue moo jóge ca kaw daal di dal ci benn kër ca salon ba sax la dal ba toit ba yëpp daal di eh, dindee ko bu ñu sukkandikoo ci Les Échos bi nga xamante ne moo joxe boobule xibaar ci noonu sax am na ñaari xale yoo xamante ne ñoo daal di tuddoon ci salon ba waaye mujj nañoo mucc ca jëye ga ndax dara dalu leen ca noonu sax ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ca kër ga mujjee mu muñu mënuñu woon sax génn ndax la grue ba nga xamante ne moo dalee foofu dafa daanaka buntu kër ga ca noonu sax la yi ñëw daal di leen dimbale ngir ñu mën a génn police nag teewoon na fa ngir indi ay leeral ci mbir mu ñu bu ñu sukkandikoo ci journal bi ba tey ñi nga xamante ne ñoo yeewoo ca Sicap Liberté 3 ñoom nag da yàggoon nañoo artuñ li nga xamante ne moo di nguur gi ñu indi solution ci mobile mbir ndax daanaka wóorul woon benn yoon COLIDEP di kuréel bi nga xamante ne la ñu teg ngir ñaaw luñ détenu yi nga xamante ne ñu ngi leen di ca kaso ba te dara waralu ko lu dum wàllum politique politique ñoom nag dañ doon janoog taskatu xabaar yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ca kaso ba te daanaka dara yóbbuwu leen fa lu du mbirum politique mbir nag ma ngay yokk bu ñu sukkandikoo ci moom ndax jóge na ci fanweer dem ci lu ëpp ñeenti doomu aadama ña nga foofu ca kaso ya ñu tëj te dara waralu ko lu dut njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement am ñoom nag troisième mandat rek moo leen daal di ñor te ku wax sax ci lu nu mel ñu daal di lay jàpp tëj ci kaso ba ñoom nag nee nañu dinañu amal ay manifestation wala sax lii nga xamante moo di mars ci ay fan yu ñu ci ay fan yu néew ñoo xam ñu autorisé ko wala sax ñu ñàkk ko autorisé dinañ ko daal di amal Massata semb ak Mamadou Niang nekk ñaari député pur yi nga xamante ne dañu doon xeex ak kii di euh, Ami Ndiaye ñibbi te bokk ci mouvement présidentiel ñoom nag dañ leen a tëddoon euh, juróom benn weeru euh, kaso ak li nga xamante ne mooy cent mille francs yu leen amende ak cinq millions yi nga xamante dañ ko waroon a jox ndàmpaay kii di Ami ñibbi lañ leen doon toppee nag bokkoon na ci coups et blessures volontaires ak li nga xamante ne moo di menace de mort ñoom ñaari député yi nag amal nañ procès appel bi nga xamante ne la war a amal ci fukki fan ak juróom ñaari weeru avril bi nga xamante ne moom la ñu nekk union nationale des travailleurs de la justice ñoom nag nee nañ dinañu amal ab grève ñaari fan tàmbali ko sax tey jii ci talaata di ñoom nag ñu ngay ñaawlu takkaaral bi nga xamante ne ministre de la justice amal na ko di Ismaïla Madior Fall ndax juróom-ñeenti ponk yi nga xamante ne amaloon nañ ko ci seeni ay revendication daanaka bile ministre defu ci dara ca noonu nag nee nañ duñu nangu benn yoon ku leen xoqatal ndax li nga xamante ne moo di grève bi seen droit la te duñ ko bàyyee benn yoon xibaaru biti réew juróomi soldat yu ñàkk seen bakkan ak yeneen juróom yoo xamante ne jëleen nañ ci ay gaañu gaañu ci ab attaque bu convoi d'orpailleurs bi nga xamante ne amoon na foofu ca montagne bu nord bu Nigéria ci région bu Agadez ci dimanche bi nag la daal di am ay om armés daal ñoo attaque seen boobule convoi ba commencé sax amal ay tir jëmale ko ci yooyu les militaires so sax la amee ab embuscade ba juróomi soldat yu daal di ñàkk seen bakkan yéenekaay bii di la regard lañ koy daal di ndax keppe moom mi nga xam ne dafa xëy fasal ci nataalam bu njëkk nga xamante ne moo di Pape Modou Fall moom naka daanaka dafa yekk lu mel ni xeme ki nga xamante ne moo di opposition bi ma nga naan toutes les institutions religieuses sociales politiques culturelles son attaquées maanaam daal opposition bi ñoom daal bàyyi wuñ kenn ku nekk la ñuy daal di attaqué moom daal ma nga naan réewu Sénégal ba bëggee génn ci gile guuta 2024 dafa war a tabaat ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi Macky Sall teewul regard itam Alioune Tine ma ngi cay tontu ñi nga xamante ne daal nee nañ dafa far moom nag mi ngi xam le ni farul fenn moom daal dafa taxaw rek ngir xeex li nga xamante ne moo di injustice mbirum Prodac ki nga xamante ne moo di Alassane daanaka wax na ci ndax euh, seetlu na ne daal mbirum corruption daf ci daal di bëri ki nga xamante ne moo di Imam Dramé également wax na ci page huit euh, bu yéenekaay bii di le regard moom nag nee na favorable à l'appel au dialogue du président euh, na woote li nga xamante ne moo di ngir réew mi mën a ànd ak dal ci page 4 bu le regard également mën ngeen cee euh, gis euh, génn bu àdduna ki nga xamante ne moo di Ibrahima seen nekkoon ku ñu ràññee ci wàllum politique te nekkoon ci partie bi nga xamante ne moo di euh, PIT.